tënkum xibaari bis ci Ali Imran TV ak Mor Baye. asalaamaaleykum mbokk yi tey la altine fukki fan ak ñett ci weeru gàmmu atum junni ki ñeent fukk ak ñeent. yemoo altine fukki fan ci weeru septembre atum ñaari junne kay ñaar fukk ak ñaar tënkum xibaari bis bi ci Ali Imran TV li ci gën a fës. dañu koy door rek eh, ndajem tëj ci xalif bi nag yëkkati fa ay kàddu soññee bu baax a baax ci jikko yu yàqu yeeg kàddu yu ñaaw yi nga xam ni daal ñu ngi nemmeeku ñu di ko waxante ci mbaali jokko yi wax na it daal ci tariqa yi soññ nag njaboot yi ñu xam ni daal tariqa yooyee nag yëpp benn lañu ñoom daal du ñu ay euh, mbëri làmb du ñu daal ñoo xam ni dañ leen a war di féngaleeg tëkkale woowaat nag mboolem taalibe yi ñu delluwaat daal ci diine waaye nag gën a dellu daal bu baax a baax ci njàngalem Cheikh Sidi Alhaaji Malick Sy euh, ka teewaloon nag eh, càmm gi di eh, njiital eh, wala jëwriñ ji ñu dénk biir réew mi di Antoine Félix Diome moom nag can foofee dal diggée ni daal dina am ñaari xalli jàll fay yoo xam ni dana ko amal foofee ca Tiwaawan benn ba nag ca dëkk ba lay yem ba ca des dafay jaar ngir rek jàll ca Ndar wax na ni rak lub maam Abdou Assis ba ca Tiwaawan nga xam ni daal daa nekk ci dayob ñaar danañu ko yóbbu ba ci ci dayop ñett maanaam niveau trois nu dem ca ba ñoom itam niki démb la ñu doon amal seen ndajem tëjtal gàmm gi foofee nag xalifa ba sëriñ Assane sek moom i daal nee na njiitum réew mi Macky Sall liggéey bu rafet la def ci bopp réew mi kon nag bumu ko yàq nguur nag fa ko yàlla di joxe nit mooy ca biiru way juram wax na it ci ngombalaan gi nena na waa ngombalaan gi daal ñoo ngi yàq deru réewum Sénégal ci àdduna bi wërngal këpp ngombalaan gi du barab bu ñuy bëree war na noo xoolaat nag bu baax a baax nañu fay nekkee moom sëñ bi kat doom di wax ni daal bu ma amoon kàttan dinaa dajale kujje gi ak nguur gi ñu bokk joxante loxo ànd liggéeyal réewum Sénégal Euh, nu wax ci gaagande go am ca diggante Kaffrine ak euh, Koungheul di gaagande goo xam ni nag daal tax na lu toll ci ñeenti doomu aadama ñàkk ca seen euh, bakkan ndefar eh, ga lakkoon nag ca njaareem moom itam daal jéye jëm ma ngay wéy di a tar ne ci gaaw bi am na keneen ci ñi nga xam ni daal ñooy jarak yeta eh, yeta doon ca rak lupp Idrissa Pouy keneen eh, koo xam ni daal moom it ñàkk na bakkanam ba tax na daal fi mu ne ña ñàkk seen bakkan nag lim ba di yokk rek saa bu ñu xëyee Euh, nu wax nag ci doomu réewum Sénégal bi ñuy wax soxna Ndate Cissé moom nag mu ngi jóge woon Touba ca daara yi Serigne Cheikhouna Cissé demoon ca Dubaay ngir nag teewal fa réewum Sénégal ci jongante njàngum alquran mu nu fa doon amal moom soxna Ndate Cissé nag moo jël euh, raw gàddu ga ñu di ko ñaanal nag suñu borom defal ko tawféex te di ko ndokkeel bu baax a baax moom soxna Ndate Cissé moomee nag bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi ñu jot suba ci talaata te ji lay dellu si fii ci réewum Sénégal euh, mbokk yi lii mooy li fi ruusoon ci tënkum xibaar yi bis bi ma amoon mbég mu rëy doon leen ko jottali ci Ali Imran TV te di leen dig daje ëllëg ndeem soob na yàlla